salaamaaleykum mbokk tuuba mbokk Sénégal maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar bu am fu mu tàmbalee te amul fu mu yem di ko teg ci loxo yu tedd. yu sunu sëriñ sëriñ Sidi mbake Cheikh Abdoul Ahad ngir nga jottalil ma nuyoo yooyu ak ziyaara boobu ak cant googu nga jottalil ma ko sunu xalif général di sunu sëriñ di sunu wayjur Cheikh Muntaxa Bachir Mbakke xalif général de Mouride sëriñ Sidi sëriñ bi moo ñu boole léegi ci bi ñuy génn autoroute bi mu ne la mu ne ma sëriñ Sidi laa la booleel ñu yegg ci ma ne la sëriñ bi na la oto bi yóbbu ma ñëw fekk ci la nga ne ma déedéet dañuy ànd dox te xawoon na xëcc lool loolu li muy wone mooy sa taxawaay ak sa yéene boo xam ne yaa ngi ko jëlee ci ndigalu xalif général sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér maa ngi nuyu njabootu sëriñ tuuba Xaadimu Rasuul bi fi teew yépp ci ndigalu ak woote xalif général di nuyu di gërëm njabootu maam Cheikh Ibra Fall ñoom it xalif bi woote na njaboot gi yépp ñëw nañu toog di nuyu mbokk taalibe yi di nuyu mbokk senegal di nuyu sa rakk ju baax ji wax léegi ci sa tur ak ci turu xalif général muy sëriñ Bassirou Mbàkke di ko sant bu baax moom sëñ Basiru bu sëñ Abdou Khadr Mbàkke di nuyu njaboot gi yépp di sant nag bu baax suñu borom di sant it Sëriñ Tuuba di wax jërëjëf Sëriñ Tuuba waaye di waxaat jërëjëfati Sëriñ Tuuba ndax du yomb li ñu dajale fii tey du yomb ndax projet la boo xam ni yéene moo ko lal te yéene ji mu ngi sukkandeku ci xam dayoo ak tolluwaayu Touba ci biir Sénégal xamitam àq bi nga xam ni war na am ci suñu diggante ak Touba sëñ Touba sànc ko wax nga ko fi léegi def ay digle santaane lu bare te ñu xam ne lépp dina ñëw kon nag li tax may sant mooy bi may suñu borom xiiree ci tracé projet bu toll nii mu jàppale ma ci kàttanam ak ci ñaanu xalif bi may santaat di gërëm te ñuy ñaan suñu boroom yokk leer sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke ndax bañ koy taxawal moom moo ñëwoon ànd ak sëñ Muntaxa bi tey def ñaan yi bàyyi sëriñ Muntaxa mu yeggali waxtaan wi kon seeni ñaan yooyu bokk na ci li ñu kattanal ndax projet quatre cent seize du lu yomb waaye bind projet bi wut alal ju toll noonu am ko tàmbali liggéey bi mottali ko réceptionné ko loolu ndimbalu yàlla moo ci dugg ak ngërëmal sëñ Touba kon nag loolu tax ma sant bu baax a baax ndax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 ngir mu jëm kanam kon maa ngi jàll ci version française bi ay xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké vénéré Serigne Sidi Mbacké Cheikh Abdoul Ahad représentant le xalif général ainsi que son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadr vénérés membres de la famille de Khadim Rassoul, chers talibés, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et représentants des pays amis, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, votre pays est aujourd'hui à l'honneur à l'occasion de l'inauguration de l'autoroute Thiès-Touba, appelée Ila Touba. Monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, monsieur le gouverneur de la région de Thiès, mesdames et messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, Monsieur le représentant de Exim Bank China, Monsieur le maire de la ville de Touba, autorité administratives, religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs, chère population du Baol, chers invités, c'est avec une grande fierté que je viens procéder ici, dans cette terre bénie du Baol, à l'inauguration de l'autoroute Ila Touba, infrastructure majeure à la pointe du progrès, réalisée au bout d'efforts considérables et d'ingéniosité technique et financière remarquable. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des Mourides et toute la famille de Serigne pour leur soutien constant dans la réalisation de cet important ouvrage et pour leur engagement dans le développement économique et social du Sénégal. J'ai également une pensée pieuse pour la mémoire de notre regretté calife, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, paix à son âme, qui a apporté sa bénédiction à ce projet. lancé en sa présence en janvier 2015. Je voudrais en outre exprimer ma reconnaissance aux populations de Touba, de Mbaké, de Djurbel, de Bambay et de toutes les localités, ainsi que Thiès, pour la mobilisation exceptionnelle et l'accueil mémorable qui m'a été réservé cet après-midi. je réserve une mention spéciale aux populations des localités traversées par l'autoroute Ila Touba qui ont accepté en toute responsabilité de faciliter la mise à disposition des sites dans un élan patriotique. Je dis donc jërëjëf aux populations de Touba, de Thiès, de Khombol, de Bambey, de Diourbel et de Mbacké et à celle de toutes les autres communes concernées. Je voudrais par ailleurs remercier au nom du peuple sénégalais le président de la République populaire de Chine, le président Xi Jinping, et le peuple chinois pour leur appui constant et leur soutien précieux. dans la construction de l'autoroute Ila Touba, financée par la République populaire de Chine à travers Exim Bank Chine. Monsieur l'ambassadeur, je vous demande d'être mon interprète auprès du président Xi pour lui dire toute ma gratitude, tous mes remerciements, puisque je sais combien il s'engage à mes côtés dans la mise en œuvre et la réalisation du plan Sénégal émergent. Il me plaît aussi de souligner le rôle de premier plan que la République populaire de Chine joue dans la mise en œuvre du PSE à travers les différents projets et programmes financés par votre pays. Cela témoigne de la solidité et de la profondeur des relations fructueuses de coopération et d'amitié qui unissent nos deux pays. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, cette cérémonie d'inauguration de l'autoroute Ila Touba marque une étape décisive dans mon ambition d'assurer avec célérité le bien-être à tous les Sénégalais, dans l'équité et la justice sociale. Une ambition portée par le plan Sénégal émergent, fruit d'une connaissance des réalités et des conditions spécifiques de notre pays. L'autoroute tout Touba est l'un des plus grands projets réalisés au Sénégal avec un budget de 415 milliards de francs CFA. Cette infrastructure constitue la colonne vertébrale de l'ossature territoriale qui préfigure un développement polycentrique, équilibré des territoires, porté par des villes créatives, entreprenantes et dynamiques à l'image de Touba la Sainte. Voilà pourquoi le tracé de l'autoroute qui s'étend sur 115 est conçu de façon à permettre l'émergence à côté de Dakar de nouveaux pôles économiques centrés autour des grandes villes que sont Touba, Thiès, Diourbel, Kaolack, Linguère ou Matam. En outre, dans un souci de prendre en compte les enjeux d'inclusion sociale, de qualité de vie, de complémentarité de solidarité territoriale, Ila Touba comprend, entre autres, près de 180 ouvrages de passage des populations et du un système de péage fermé avec six postes ainsi que deux aires de, service installées à Bombay. Par ailleurs, pour relever le défi de l'innovation, de la sécurité et de la gouvernance durable, nous avons opté pour une autoroute moderne, intelligente, permettant une surveillance vidéo sur toute la totalité du linéaire, un monitoring de toutes les opérations et activités et surtout un dimensionnement des ouvrages facilitant l'élargissement en deux fois trois voies kon foofu li ma bëgg a wax mooy Ila Touba du rek autoroute waaye dafa nekk autoroute boo xam ne biñ koy liggéey dañ ci dëxëñ ay xarala yu bees yuy tax yoon wi yëpp am na ay caméra télévision yu koy filmer ba tax lu xew ci yoon bi daañu xam fan la su jafe-jafe amee dañ ko mun repérer liggéey ko liggéey bu am solo Ila Touba am na aussi ay post yoo xam ni ak bërëbu noppalukaay muy ñaar ci wetu Bambey am na ay yoon yoo xam ni lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk dañ ko ubbi ngir jur gi wala doomu aadama yi mën di ci jaar bañ di traverser autoroute maa ngi ñaan sëriñ bi mu joxe ndigal si ñu moytu di dagg grillage yi ñu ngi doon xalaat sax ndax duñ ci def courant du nekk nag courant buy buy reye wala buy gaañe waaye dana tax boo ko laalee di nga teggi sa loxo pour ñu bañ di dagg grillage bi ndax bu ñu daggee grillage bi jur gi dana jaan jur gi dana si jaar te bu si jaaree dana yéeg ci tali bi te ku wax autoroute xam ne ay xel lañ si daw te loolu dana indi ay musiba ak ay lor kon su ñu amee autoroute yu mel nii nag dañu war a changer tam suñu ay comportement ak suñu façon nu ñuy dawalee suñu façon nu ñu war a nekkee ci kaw tali bi loolu dafa am solo waaye yoon bi dañ xam nañ ne Touba la dem rëy na lool autoroute bi lu mu bees bees lu mu gaaw gaaw xam naa ni fii at yu néew Ila Touba dina fees dell kon prévoir nañu ni ñu ko yaatalee au lieu mu nekk deux fois de ci kanam bu ko trafic bi laajee dinañ ko mën def deux fois trois voies mooy yoon bu ne ñetti ligne di ci dem ñetti ligne di ci dellusi si loolu yëpp boole nañ ko ci liggéey bi Ila Touba tax na. ci biir jamono jiñ koy liggéey lu toll si ñeenti junni doomu aadama liggéey nañ ci programme le feyeku nañu lu toll si ñaar fukki milliards ci ay salaire yoo xam ne ay payeur la ñu fay doomu réew mi nekk na lu am am solo ci koom-koom bi waaye jamono ji nga xam ne liggéey bi pare na du tere pour gestion bi lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki nit daañu mën a liggéey ci autoroute bi ñii dinañ nekk ci péage ñii nekk ci yeneen i liggéey pour que mu mën a jëm kanam pour entretenir Ila Touba ñu ngi dënk gum liggéey bi société bi ko tabax muy CRBC donc CRBC va assurer l'entretien et l'exploitation jusqu'à nouvel ordre pour le compte de l'État du Sénégal. Donc je remercie d'abord l'entreprise CRBC, je vais y revenir en français, en rapport avec des prestataires. C'est ici le lieu de féliciter le gouvernement du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, seen gouvernement ndigal yi ma ko joxoon doxal nañ ko ci anam yi ma ko bëggee woon muy liggéey bu gaaw liggéey bu set ah, gouvernement bi def na ko kon dinaa la jox félicitation gouvernement bi yëpp moo xam li jëm ci ministère yi ko ànd seq liggéey bi bi ci jiitu muy ministre des infrastructures te tey Abdoulaye Daouda Diallo yor ko ànd ci ak waa Ageroute may gërëm di sant directeur général Ibrahima Ndiaye moom ak ay cadram ak ay personnel am gàcce ngaalaama si ni nga xam ne noonu lañu ñu taxawee waaye maa ngi gërëm l'ensemble des ministres ministère de finance ministère bi yor aussi wàllu euh, territoire yi parce que bëri woon na ay jafe-jafe waaye tous les services de l'État taxaw nañu ni mu waree pour que liggéey bi mën a antu de mu nekk liggéey bu am solo bu loolu weesoo ma sant ci kàllaama nasaraan ñi nga xam ni aussi ñoo liggéey liggéey bi muy euh, entreprise CRBC nga xam ne waroon na def ñeenti ñeent fukki weer ak juróom ñu liggéey ko ci fanweeri weer ak juróom-benn loolu aussi CRBC je voudrais vous féliciter pour la qualité de l'ouvrage pour la rapidité avec laquelle vous avez réalisé cette infrastructure majeure remercier également la Exim Bank China pour son travail remarquable. Remercier aussi le bureau d'études STUDU à travers M. Ben Youssef qui a assuré le suivi des travaux. Ila Touba s'inscrit dans un vaste programme d'infrastructures complémentaires et structurantes emblématiques de ma, de ma volonté de façonner un Sénégal nouveau. Un Sénégal avec plus d'inclusion, plus de solidarité et plus d'équité. Un Sénégal compétitif, résilient, apte à faire face aux risques géopolitiques. Bref, un Sénégal de tous les possibles, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Dans cette perspective, l'autoroute Ila Touba se révèle comme un accélérateur de croissance économique qui favorisera une pleine valorisation des potentialités de la ville de Touba et des terroirs qu'elle polarise. En vérité, avec cette autoroute, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Touba, qui pourra désormais mieux assurer son rôle de deuxième pôle économique du Sénégal. Cette autoroute est aussi un vecteur de développement du tourisme religieux et un levier clé pour fortifier la vitalité culturelle et religieuse de Touba. Outre son impact dans la structuration de l'économie locale, Ila Touba facilite la circulation des personnes et des biens dans le confort et la sécurité des usagers. Et pour anticiper cette dynamique urbaine, mon gouvernement a engagé dans la ville de Touba la construction de 163 km de route, 18 km de pistes neuves, ainsi important réseau de drainage et d'évacuation des eaux pluviales. financé à hauteur de 48,5 milliards de francs CFA. Il s'y ajoute la de 14 km de nouvelles routes, l'élargissement en trois voies de la route touba le contournement de la ville de Touba par l'élargissement de la route en deux fois deux voies sur 10 yaakaar naa sëñ Bassirou waxtaanoon nañu si muy won la ne liggéey bi yemul ci Ila Touba waaye li ñu bëgg pour Touba mën a jouer bi mu war a en tant que deuxième ville économique ci réew mi moo waral ñu tabax 163 kilomètres de route mais yokk si 18 kilomètres de piste ak surtout réseau assainissement bi ñu def pour que ndoxu taw yi di baña indi lor ci biir Touba mais surtout ak ndoxu biir kër yi loolu yëpp nag am nañu programme buy coûter ñeent fukki milliards ak juróom-ñett ak lu topp pour def programme yooyu waaye yokk nañu quatorze kilomètres yu bees yoo xam ne tali yu bees la yooyu en plus élargissement deux fois trois voies wax naa ko Mbacké Touba. dinañu def yoon buy contourner Touba maanaam kii jël Ila Touba war a dem Daara Linguère wala Matam dina am yoon boo xam ne bu dugg see mën na bañ a di yokk circulation biir Touba day leru Touba def contournement daal di génn dem yoonam beneen yoon aussi bi nga xam dana ko jaar wetu Mbàkke daañu ko def su ko defee Touba dana am ñaari yoon yu koy wër ndomb ci ay périphérique loolu bokk na aussi ci yéene yi mu fas yéene mottali fii ci Touba ci loolu waxtaan waxtaanoon ak xalif bi di sëñ Muntaxa yal na yàlla yokk taxawaayam yokk wér mu wax mu joxe ndigal aussi ak nangu ñu def boulevard de trente mètres yéen a ko tuddee boulevard trente ci lu toll ci seize kilomètres waaye aussi assainissement ak ay lampes muy éclairage des voies ak réalisation aménagement paysager loolu nag buñ koy wax mooy ci tali yi ñu defar ci ay trottoir ay làmp waaye itam def ci ay garab pour que dëkk bi tam mën a am ay garab loolu mooy cadre de vie bi nga xam ne fas yéene nañ ko mottali kon mën nañu wax ne liggéey bi ñu mottali tey muy Ila Touba dafa bokk ci li sëñ Touba Cheikh Amadou Bamba waxoon te sëñ Basiru firi na ko lu bare bare ak lu yaatu loolu day wane rek ne jëfam dafa teg lépp ci jaamu suñu borom teg lépp ci liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa teg lépp ci li ñuy wax la mystique di travail mooy doomu aadama liggéey moo koy mën a jàllale loolu ay principe yoo xam ne moo ŋànk mouridisme moo waral ñu jàpp yit ne Ila Touba bi bu ñu ko liggéeyee ba pare war nañ fexe ba njëg li nekk tam lu yomb ci doomu aadama yi moo tax euh, fexe naa ba autoroute bu njëkk bi ñu wàññi njëg yi ba nga xam ni léegi diggante aéroport Ndakaaru ba Touba Euh, foofu yëpp daanaka 3000 francs lay mën a doon diggante Ndakaaru Touba boo ci boolee même autoroute bële du passé junni ci ku yor oto bu ndaw wala oto moyen loolu nag jërëjëf jërëjëf loolu lañu sëriñ bi sant muy ñu wax principe yi nga xam ne cheikh bi moom la wax ñu teg ko ci humanisme humanisme mooy lépp lu soxal doomu aadama ñu koy solowoo ñu teg ko it ci njub ak ci liggéey ak ci ragal yàlla mu la fois en Dieu waaye fonk doomu aadama nangu it toujours sacrifice ak muñ muy patience ak tolérance loolu moo waral ñu fexe ba valeur yooyu ni ko sëriñ bi waxee ñu fexe di ko yaatal ci biir réew mi dina nekk njëriñu Sénégal dina nekk njëriñu ndaw ñi lii moo tax nag pour que autoroute bi nekk autoroute bu bees bu mucc ayib dañuy recommander usagers yi ñuy wut carte su ko defee ku ci am carte dootoo taxaw di fay ak di jël ay weccet carte boobu dañ ko bëgg a tuddee carte xéewal muy boo xam ni mooy def diggante AIBD bi Touba pour 3000 francs dana yombal liggéey bi donc ci kàddu yooyu laa bëggoon wax tey jii la ñuy ubbi Ila Touba officiellement à la circulation kon jërëjëfati Serigne Touba maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.